asalaamaaleykum mbokk internet yu xibar TV dal len ak jam ci ab tiis bo xamanteni ni dal dinañ ko nemé ko ci talibé tali mu melni nak ab ben accident bo xamanteni ne moo di am ci yoonu Kungel ba bile accident nak nekati accident bo xamanteni bu metti metti metti metti la doon nak ndax bari na ci ñu bari na ci dal di jëlay gañu gañu ñen ñi ci dal di ci ñak seen bakkan boobule accident nak mu ngi dal di xewé ci yoonu kungel ga ca naka noné nak lu tollu ci fuk ak ñeenti doomi adama ñom ñoo ci dal di ñak seen bakkan ñen ñi nak ñoo gi daal di ñàkk seen bakkan gannaaw bi ñu daal di amee ay gaañu gaañu waaye bi ñu leen di rawale hôpital ca naka noonu lañ daal di mujjee jaaree foofu ne daal di ñàkk seen bakkan boobule accident nag li ko waral moo nekkoon ab bis boo xamante ni nag daal dina woon yëpp ba fees moo daal di jóge woon foofu nga xamante ni ni moom moo nekk ca kii ba ca naka noonu nag la ko dappanu ba di toj mu mel ni nag gannaaw bi mu daal di daanoo ca la loolu nga xamante ni moo di boobu la jëyee daal di cay xew ñu bari nag daal di cay ñàkk seen bakkan bu loolu mel nag waral ba tax sax ñu bëri di jooy ci li nga xamante ni moo di ay accident la circulation yi nga xamante ni moo ngi daal di xew boobule barab nag ñu fay faral di nemmeeku ay accident yoo xamante ni ne saa yu amee rek ay jéye yu méttee méttee sax nag lay daal di indiwaat li ni bi mu daal di xëyee démb ñoom ñu autorités yi nag ñu ngi fa woon mu mel ni ñi nga xamante ni moo di gouverneur sapeur pompier ak ni ni mel ñoom nag daal dina ñëw ca bërëb boobee ngir daal di jàppale ñoom ñi nga xamante ni ni ñoom ñoo daal di nekkoon ca yooyu la boobule oto ca ca bëri dañ leen a daal di rawale foofu nga xamante ni moo di ca l'hôpital la waaye tamit bu ñu euh, ñoom li nga xamante ni moom moo nekk yooyu la euh, ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo daal di tukkee ca boobule accident nag ña ci ëpp ñoom dañ leen a daal di rawale foofu noonu nga xamante ni moo nekk ca l'hôpital waaye tamit ñi ca des nag daal di woon amee ay gaañu gaañu ñoo ngi leen di daal di jël di leen faj ci yenn bërëb yi nga xamante ni ni moom moo nekk hôpital bu Kaffrine waaye tamit centre bu santé bu kungel li ni mel nag ki ko xam leen nekkul kenn ku dul jëwriñ ji ñoom jëwriñ di yor lépp li jëm ci wàllum santé waaye tamit naka noonu accident bi mu daal di xewee fa nemmeeku ab moom mi nga xamante ni ni moo yor lépp lu jëm ci wàllum transport di El malik Ndiaye El Malick Ndiaye nag daal dina ñëw foofu gannaaw bi nga xamante ay 3 heures du matin daal dina jot te naka noonu nag la daal di yëkkati ci ay kàddu di xam ne ni ñoom nag ñoo ngi daal di remercier ak équipe yi nga xamante ne ni ñoom ñu ne daal dinañ déplacé wu ngir ñëw daal di jàppale ñoom ñi nga xamante ne ni ñoo daal di loru ci bile accident te naka noonu nag daal dina cay yokk ne moom nag ab njaale la daal di dëkkati di ko daal di teg ji ñoom ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo daal di am ñu ci daal di ñàkk seen bakkaan ñoom ñi nga xamante ne ay gaañu gaañu lañ daal di amee moom El Malick Ndiaye moo leen di daal di ñaanal ngir ñu daal di cay jóg ca nu mu gën a naka noonu nag la daal di xam le ne li ni nag nekkul loo xamante ni ne dañ ko war a daal di bàyyi chaque jour muy daal di jàll ca naka noonu nag moom El Malick Ndiaye la daal di artu ñi nga xamante ni ni ñu di chauffeur yi waaye tamit daal di soñaat ñoom ñi nga xamante ni ñu di contrôleur yi ca naka noonu nag la daal di yokk ne moom El Malick Ndiaye li nga xamante ni moo di wàllum surcharge ak li ni mel nag ñoom gouvernement bi danañ ci daal di jël mesure ca na mu waree waaye tamit limitation de vitesse ak li ni mel moom El Malick Ndiaye nag bëggatul gis benn yoon accident ci mu mel nii ci biir nga xamante ni moo di wàllum tali bi moo tax nag mu daal di xamle ni ñoom ñi la danañ daal di mobiliser lépp li nga xam ne moom moo daal di war bu ko defee bile jéyee dootul daal di am moom El Malick Ndiaye nag la daal di xamle ne moom li ko daal di soxal nag moom mooy daal di taxawu askan wi waaye tamit daal di na ñëwaat ci li nga xamante ni ni moom moo nekk njaalu président de la république Bassirou Diomaye Faye donte moom moom mu ne nag gis nañ ko ci ab benn tweet mu daal di ko cay xamle di woo ñoom ñi nga xamante ni ni ñoom ñooy service yëpp loolu daal di concerné ngir ñu daal di mobiliser wu ngir daal di taxawu askan wi nga xamante ni ne dañoo daal di loru ci li ni mel ca naka noonu nag mu ngi daal di xamle ne nag ay mesures tamit danañ ko daal di jël bu jëyee ju mel nii dootu fi daal di am moom El Malick Ndiaye daal di yor kàddu ki nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye daal di ko fa respecté nag moom daal dina xamle li ni mel gannaaw bi ko président daal di ko defee ci ab tweet mu ne nag gouvernement bi ñoom kon daal di nañ taxaw nekk temb ngir daal di. indi ay saafara ci lii nga xamante ni ni moom moo daal di xew ca yoon yi ca naka noonu nag daal dinañ yokk ci seen kàddu yi ne ay mesures yu urgent moom danañ ko daal di jël waaye tamit danañ daal di a dëgëral di nga xamante ni moo di wàllum sanction daal di xam le ne ñoom contrôleur routier yi danañ leen daal di jox ordre yoo xamante ni oto boo xamante ni sàmm woo ak li nga xam ne moom la yoon daal di tëral nag waroo daal di daw ca taliba moom El Malick Ndiaye nag daal na cay yokk ne moom daal dina xam le ne lépp loo xamante ni nag gis nañu ne buñ ko daal di jëlee dinañ daal di saafara li ni mel danañ ko daal di jël ca na mu gën a moom El Malick Ndiaye nag daal dina yokk ci kàddoom ne ñoom ñi le daal dinañ pare ngir daal di taxaw ñëpp ñu fee daal di jëlee ay gaañu gaañu bile nag mu ngi daal di xewee ci yoonu Koungheul ga ñu fàttali ne boobule jeune nag dafay faral di am ay nit ñu bëri la fay daal di jëlee ay gaañu gaañu bu ñu fàttali ko accident bu six kilo bi nga xamante ne fa la daal di xewee woon ba nit ñu bëree bëree bëri sax daal di ci woon ñàkk seen bakkan bakkan mu nekkoon loo xamante ni lu métti métti woon la nag daal di woon xew ca yoon boobu noonu gannaaw bu ñaari bis daal di cay mbëkkante waaye tamit tey nag ñu daal di gisaat bile accident nga xamante ni ne moo waral bu fukki nit ak ñeent daal di fay daal di cay ñàkk seen bakkan lu toll ci ñeent fukki nit ak ñeent daal di cay jële ay gaañu gaañu ña ca bëri nag ña ca ëpp nag daal di amoon li nga xamante ni moo ay blessés léger waaye tamit lu toll ci fukki nit nag ña ca daal di gam ay plaisir yu grave gannaaw bi nga xamante ni ne ñoom ñi le nag daal di nañ ñëw ministère de la santé nag daal di xam le ne ñoom ñoo ngi leen daal di réparti comme nii fukki blessés yi nag grave ñoo ngi leen daal di yóbbu fële ca hôpital bu Kaffrine ñeent yi nag ñoo ngi nekk en prise en charge ca bloc opératoire waaye ñeent fukk ak ñeenti blessés légers yi nag 27 yi ñoo ngi leen daal di prise en charge foofu tamit ca hôpital bu Kaffrine di sept yi nag ñu daal di leen yóbbu ci centre de santé bu Koungheul waaye tamit ñeenti koor yi nga xamante ni nag seen borom dañoo daal di génn àdduna nag ñoo ngi foofu noonu nga xam ne moo di centre de santé bu Koungheul ca naka noonu nag mu daal di xam ne ne ñoom patients yi nag ñoo ngi ci benn situation bu stable ministère de la santé nag ñoom ñoo daal di xamle li ni mel waaye tamit daal dinañ nemmeeku ci li nga xamante ni ni moom moo nekkoon ay matukaay te gouvernement bi fi nekkoon ci jamono président de la république Macky Sall daal di ko woon jël daal di tere lépp li nga xamante ni ni moom moo nekkoon ay Versailles ak surcharge tamit lépp lu jëm ci wàllu marchandise yi ci kaw mu mel ni nag loolu li nga xamante ni ni ay ndogal la président la république daal di ko woon jël terewut accident yi daal di am ñu fàttali tamit ni gouvernement bi daal dina woon daal di dakkal lépp li nga xamante ni moo nekkoon daw guddi ci bis yi leen mu mel ni bile accident nag ca bëccëgu ndar kam la daal di awee ndax bu li nga xam ne juróomi waxtu ci ngoon daal di jot la daal amee foofu noonu ci yoon boobu noonu lee mu mel ni nag kon guvernement bi fi nekk faw ñu daal di càmbaraat xoolaat lan moo li nga xamante ni ne doxul ngeen ñu cay daal di jël ay matuwaay ca no mu gën a gaawee li ni mel nag bu amee dana daal di taxaw doo tax askan wi mën a daal di voyager ci léger ñoom bis yooyee nag di faral di daw ci ay vitesse yoo xamante ni ne yu jéggi dayoo la nag moom jëwriñ ji yor lépp jëm ci wàllum transport di El Malick Ndiaye dal dina xamne ci kàddum ne vitesse yoy nak danañ ko dal di limité bu ko defé yenn xel yi nak kenn dotu ko mën daw ci talé bi wala sax boko dawé bu fekkee né ñom way tak der yi dal dinañ la gis danañ la dal di teg loxo bu paré teg la dal yi nga xamanteni ni mom moy mooy yi war ndax li ni mel nekkul lo xamanteni ne dañ ko wara dal di bay mu jall mu melni nak yoy yooyu accident di faral di am da fay bax ni nit ñu bari dal di cey ñak seeni bakkan lolu nak mu nekk jëf jo xamanteni ni mo ngi dal di xew ni ki démb ca alxames gile waaye tamit eh, moom El Malick Ndiaye nag demoon ca bërëb ba nag ngir daal di xool situation ba na mu daal di toll mbokk yi ñu leen di jox dig daje ëllëg